Bilal Diatta le maire de Keur Massar Sud poursuivi euh, pour atteindre à la sûreté de l'État ñu jàppoon ko si li nga xam ne mooy mois de mars si le 22 mars tey nag ñu am occasion waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy son chargé en communication di tamit suñu naataango journaliste Amadou Camara balaa ñuy woy waxtaan bi rek ñi bàyyi la nga présenté wu ak euh, kàddu yi ngay jëmal euh, ñi nga xam ne ñooy ñoo lay seetaan fi nga xam ne mooy Sénégal 7. waaw jërëjëf jërëjëf beaucoup. Euh, si dalal bi di wax ni fii sunu kër la parce que borom kër gi yàlla def na ni am nañ kóllëre bu baax a baax waa di rafetlu invitation bi di nuyu seen téléspectateur yëpp téléspectateur yëpp yi ñuy seetaan ci àdduna bi waa di wax ne Mouhamed Bilal jaata ñu ngi ko jàpp depuis le 22 mars pour atteinte à la sûreté de l'État boobu ba tey nag yàlla def na ni mu ngi rëbës donc di xaar pour ñu àtte ko donc li ñuy naxarlu lenn kese la parce que maire la il représente une institution wëlbatiku di nekk chef d'entreprise donc di liggéey loolu ëpp ay fanweeri nit nekk père de famille kon yaakaar nañ ni buñ ko tuumaalee dara li doon gën mooy ñi def ko sous contrôle judiciaire bàyyi ko mu lijjanti ay yitteem ndaxte lancé na ay projet yu baree bëri bëri euh, bu ko defee buñ demee ba def seen enquête ba mu noppi buñ gisee ni moo tooñ ñi denc ko buñ gisee ni tooñul ñi bàyyi ko mu dem ñun loolu la ñuy ñaan ndaxte mënul nekk maire lu toll ci ay milliers de personnes votel ko Kër Massar Sud li fa nekk ci population ëpp na deux cent cinquante mille habitants donc mu am ay projet yu mu nekk di ko liggéey. un an la fa def ñu bëgg ko làq jant bi dañuy ñaan autorité yi foofu ñi gën fa utiliser intelligence bàyyi ko mu delluwaat ci maireem parce que moom lañ fal faluñu ko ndax muy doxal par procuration wala muy doxal à distance dañ ko fal pour mu toog fa gere problème askan bi. condition condition yi lañ bëggoon xam parce que ça fait presque mois yu bëri dégguñu xamuñu Bilal si lu mu ne dégguñu presque xanaa ñi nga xam ne ñoo féetoo euh, ba ñoom baaragee lañ dégg ñuy wax. te nga xam ne mooy Kër Moussa ginnaaw conférence presse bi ñu doon def ñu bëggoon xam yan condition si la Bilal Diatta nekk ginnaaw ba mu jugee États-Unis ñëw def point de presse rek gars yi jël ko. waaw il est dans dans de très bonnes conditions gis nañ ko waxtaan ak moom il a le moral bon semaine passée lañ fa jobee waxtaan ak moom dara wàññeewul ci engagement am dara wàññeewul ci motivation donc il est dans de très bon condition c'est vrai que ñoom Bara Gaye defoon nañ une conférence wala un point de presse pour fustiger euh, sa détention. mais boobu ba tey réseau yi mu bokk que ça soit le réel qui est le réseau de euh, élus locaux du Sénégal wala la l'association des maire du Sénégal kenn bindul communiqué jëmale ci moom ñi yaakaar ni nag moom bu nekkee maire donc mu nekk le seul maire bu ñu arrêté Sénégal doon na jaadu doon na rafet association yi mu bokk génn sax def communiqué parce que tey fépp foo bokk corporation boo mënti bokk nga nekk journaliste nga nekk avocat nga nekk médecin bu ñu la jàppee ñooñu ñooy yëngu wax ak yow mais nag li doy waar mooy nos institutions sont tellement bi bipolarisées nañ ko ba nga xamante ni bu ñuy xalaat ils réfléchissent wala ils agissent sous le prisme de la politique te loolu jaaduwul association yu mel ni AMS waruñu ko politiser lu mel ni réel tamit créé nañ ko au lendemain des élections de janvier 2022 mais on se rend compte ni c'est parce que dañ ko créer rek simplement pour pouvoir s'opposer alors que loolu pour man si pour ñun démocratie bu ñuy indi lu bees dafa war a am une valeur ajouté bu ñuy indi lu lee lu bees warul nekk rek opposé wu pour opposé wu mais war na mën a nekk loo xamante ni day défendre les acquis de la démocratie wala mu leen promouvoir mais warul nekk rek une entité créer mu nekk une coquille vide sans mu am action sans mu am dara donc ñu ngi woo acteurs politiques yëpp que ça soit de la mouvance présidentielle que ça soit l'opposition ñu delloo si waat seen xel ne discours va t bi jaru ko bu ñuy réfléchir nañuy réfléchir wala ñuy agir sous le prisme du Sénégal bipolarisation bi àgg na foo xam ni jégg na dayoo boo demee dans toutes les contres du Sénégal bu dul Ousmane Sonko Macky la àgg na ba ci presse bi àgg na ba ci confrérie yi àgg na ba ci daayira yi prisme bi ñu war jiital mooy le Sénégal tey boo déggee dans la plupart des pays ñii politique ñëpp su ñuy wax America Great Great Again la ñuy wax ah, la France en marche seen réew la ñuy jiital kon na acteurs politiques yi delloo si waat seen xel ñi ñaan les autorités administratives et les autorités politiques mbiru Bilal Jaara Jaata ñi ñi dawal ci yërmaande dawal ci intelligence bàyyi ko mu delluwaat ci meereem liggéey bi mu sumboon mu eggale ko ci jàmm. que tey mënoo la fal maire yàggul dara. nguur teg la loxo ginnaaw ay kàddu yu nga yëkkati te lu ko waral point de presse bi si Bilal Diatta dégg nañ ko mu a femme yi nga xam ne dañoo enceinte lañ lañ dooroon gaz lacrymogène ak raxam ji nga xam ne tamit dafa asma door ko lacrymogène est-ce que tey jàpp nañ ne euh, loolu amul gàllankoor si biir mairie bi biir mairie Keur Massar Sud waaw pour l'instant je pense que amul benn benn benn gàllankoor parce que ñamu fa bàyyi muy le secrétaire municipal et et et ses ña ngay doxal nañu war a doxalee ña ngay liggéey nañu war a liggéeyee et je pense que loolu bi ñu gisee monsieur le maire aussi rafetlu na seen liggéey parce que ñam fa bàyyi mën nañ ay ndaw ci li mu wax nag délit d'opinion lañ ko jàppee mooy loo xam ni xalaatam la ci wax waaw loolu nag bëri na léegi Sénégal nga wax sa xalaat ñu ne la li nga wax wax dëgg yàlla waroo ko woon wax wala li nga wax offense au chef de l'État la wala atteinte à la sûreté de l'État bëri na luñ koy gis ci Sénégal euh, loolu nag duñ ko rafetlu parce que li mu wax ay nit wax nañ ko fi te ñooñu la ñu wax dara fekku leen ci je pense que justice warul doxee noonu justice dafa war a tëddee njaaxaanaay mu mel ni nag xaw na am deux pois deux mesures euh, mais démocratie fi mu toll pour man waratuñ téye nit ci délit d'opinion malgré nag opinion yëpp du moom la ñuy rafetlu dafa am benn philosophe euh, allemand d'origine américaine bu ñuy wax Anna Arendt dafa bind ci benn manifeste vérité politique en 1967 di wax ci ne ñaari vérité moo am di wax ne ñaari vérité moo am muy vérité d'opinion et vérité de fait mu ne nag vérité d'opinion am na yoo xam ne mën nañ ko vérifier mën nañ ko démontrer mais am na yoo xam ne mënuñu ko démontrer day tijji buntu boo xamante ni lu waaye neex wax et mënuñu tere ay milliers de personnes di wax wax yu mel noonu mais li am solo dans l'écosystème démocratique mooy les vérités de fait moom la anglais di wax true of fact ngeen jàpp ne injustice moo lal si si waaw mënuñu ne injustice la parce que euh, la mu wax ñoom xëy na am na nuñ ko gisee wala am na nuñ ko interprété mais li ma bëgg a xamale foofu rek mooy ne la mu wax ñu bëri wax nañ ko te dara fekku leen ci waaw am na seen mbokk journaliste boo xam ne day bind chronique mais yekkale lu mel ni xamee magistrat yi mais gis nañu loolu dara fekk ko ci kon je pense que war nañu mën a apaiser situation bi mënuñu woote dialogue ba pare am ay détenus politique donc il va falloir que situation boobu noonu ñu apaiser ko et que wax ni Sénégal dépassé na fu ñu amee ay doli d'opinion am na benn professeur université bu tudd Ndiagalum buy jàngalee Canada moom nee na ñi ñu jàpp jàppee wuñu leen délit d'opinion mais délit d'appartenance la wala délit d'amitié wala délit délit d'ambition parce que dafa am ku ñu àndal moo tax ñu jàpp leen dafa am fu ñu bokk moo tax ñu jàpp leen kon ñun loolu duñ ko rafetlu bu ñu nekkee ci démocratie démocratie mooy avoir la capacité de dire même ce qui ne plaît pas aux autres loolu mooy démocratie donc mënuñu ne démocratie boo fa nekkee li la neex rek ngay dégg donc parfois da ngay dégg des réalités yoo xam te ni sont contre à ce que tu penses loolu mooy démocratie comme le dit George Orwell kon mënuñu nekk ci logique boo xam ne lu la neex rek nga war a dégg parfois nga dégg lu la naqari parfois nga dégg loo xam te ne jubu woo ko mais li Baudelaire di wax rek li am solo mooy même si je ne suis pas d'accord avec toi je me battrai pour ce que tu dis ce tu penses même suma ma d'accordul ak yow dinaa def tout ba yow li nga xalaat nga wax ko kon fi ñu toll 2023 Sénégal war na dépasser foo xam te ne dañ fay téye nit pour des délits d'opinion. arrestation yi yu ñu yu li nga xam ne mu la ñuy teg si waa membre de Pastef yi boobu la moo doon sa analyse si loolu. waaw mooy li ma wax léegi rek ñu si bëri tey lu ñu bind la wala lu ñu wax la. waa kaay bokkul mais ñu si ëpp délit d'opinion lañ leen jàppee naam man duma waa Pastef je le conseiller en communication du maire Bilal jaata mais li ma jàpp mooy ne mënuñu woote dialogue apaiser la situation parce que dialogue faa mu am mënta ñàkk bañ am première guerre mondiale c'est dix millions de morts dañoo toog waxtaan deuxième guerre mondiale c'est cinquante millions de morts dañoo toog waxtaan États-Unis guerre de sécession cinquante mille morts entre le nord et le sud dañoo toog cinquante mille morts dañoo toog waxtaan kon waxtaan mënta ñàkk la am solo mooy la ñuy laytaayee terme de référence yi loolu moo am solo mais mënuñu ñàkk a bañ waxtaan kon mënuñu woote dialogue ba pare am ay prisonniers politiques ñooñu nañ leen bàyyi ñi delluwaat seen kër ñi nga xamante ni yoon am na lu mu leen topp ñu def leen sous contrôle judiciaire je pense que loolu tey moom mooy mën a apaiser l'atmosphère politique ba pare ñi génnee ñu ci carcan bi ñu nekk ñu ne ay journaliste lañ mais tey boo xoolee tey le jargon qu'on utilise dans les médias ou bien dans la presse mandat de dépôt retour au parquet perquisition ah loolu léegi ngay dégg alors que réew mi normalement bu fekkoon war nañ def une étude monographique sur les termes à utiliser bu fekkoon réew mi mi ngi ci jàmm croissance la ñuy waxtaanee développement ah économie verte ah taux de croissance ak yeneen a yeneen mais le fait rek jargon bi ñu utiliser yow yow mi nekk ci métier xam nga ni du jargon boo xam ni bu neex a dégg la mooy li ma wax rek mandat de dépôt retour au parquet perquisition genre terme yooyu rek ñooy revenir tous les jours alors que espace public bi dafa soxla ñi assainir ko génnee waxtaane loo xam te mooy amal njariñ askan bi mënuñ ñëw à chaque fois ñi ñuy tënk sous des débats purement politiques et politiciens mënul nekk il faut en tant que conseiller maire du ma la dog sax en tant que maire ki nga xam ne mooy Bilal Diatta lan la ba ginnaaw ba ñu leen falee maire. waaw maire am na projet yu mu jot a actuellement dafa am un budgétaire boo xam te ne dépassé na plus de deux cent quatre vingt dix millions am na projet bu mu si lancé lancé yaakaar na appel d'offre bi déjà c'est disponible euh, dans dans les médias. lancé na ce kon appel la santé gratuite tey képp ku dëkk Kër Massar boo bëggee faju mën nga dem ñu jox la bon de ticket à la mairie sans nga fay je pense que c'est une révolution lu ñu war a xoolaat la lu ñu war a mën a copier la parce que modèle bu baax la tey bu ñu xoolee au Sénégal tey ñi si am assurance maladie bëriwul donc bu defee loolu lu am solo la d'autant plus que tey suñu ratio nombre d'habitants ak médecin boo koy xool sori na loolu ëpp na tey un habitant pour euh, un médecin pour mille habitants kon bu tegee jéego yooyu noonu je pense que ku ñu war a encourager la du koo xam ne dafa war a nekk kaso dañ ko war a génnee ci biti mu toog continuer liggéeyam waaw amul siège wax na ko rappelé na ko ne à chaque fois celui qui paye euh, le loyer à quatre cent cinquante mille francais fa loolu aussi ñu ngi ciy ñaax autorités yi di leen ci woo pour que Kër Massar Sud même su fekkee maire bu bees la mu mën a am un siège boo xamante ni dafay dafay dafay dafay dafay dëppoo tey ak li waa Kër Massar Sud soxla. mais en tant que foo la des ba tey en tant que maire yi tey waruñu wax Kër Massar Sud wala Yëmbal Nord lii en tant que maire yi yéen Kër Massar ngeen nekk est que dafa am blocage moo tax ba léegi amagoo leen siège wala. waaw je pense que blocage bi c'est au niveau euh, administratif je pense que amaguñu ñoom trouver amaguñu terrain boo xamante ne jox nañ leen aval pour ñu mën ko euh, defar tabax je pense que aujourd'hui ñu nekk maire maire yi ba le secrétaire municipal ak ñeneen ñi son mieux habilités à répondre à cette question là parce que ñoom ñoo ma gën a maîtriser les questions techniques ak qui tournent autour de cela manifestation yi si biir Kër Massar na lëmbe réew mi suñ mu ne xam li lim bi ak nu condition yi nu mu demee. waa lim bi Kër Massar jàpp ma ñaata la de manière xam naa bëri na tey ñu ñu fa jàpp ay ñoom Babacar Ndiaye ak ay ne ay membres GPS lañ bëri na tey ñu ñu fa jàpp bëri tamit ñu ñu fa jàppoon tey ñu bàyyi leen ñu delluwaat seen kër ñu nekk sous contrôle judiciaire comme ku mel ni Ousmane Kébé nga xamante ni ah, ci ñu jiite magu Pastef ci la bokk. waaw mais li ñuy wax rek mooy di ñaan jàmm di ñaan autorités yi surtout magistrats yi ñi yolomal mbir yi parce que parfois dina metti nag si ñoom bu ñu leen critiquer si seen métier mais critiquer tekkiwul saaga amul benn métier bu ñu jul remettre en cause métier bi ngeen nekk chaque jour nit ñi remettre ko en cause critiquer ko métier moo mel noonu li bon mooy saaga ak jël ñëpp yemale leen na ñoo yam parce que tous les magistrats yemuñu dafa am benn philosophe euh, Khaled Ben Cheikh buy wax ni y' a pas pire que les généralisations abusives et les essentialisateurs réducteurs bul ni ñëpp nii lañ mel ñel ñenn nii lañ mel donc dans tout débat il faut préférer des ou certains à la place de les mën nañu ñenn ci ñoom rek ñii lañ mel mais amul corporation buñ dul remetre en cause parce que ay justiciable sénégalais dañ leen di àtte ñuy kontaan wala ñuy ànd ci li ñu leen di kon am nañ droit àllu nii ñeen leen lañ leen àtte d'accord uñ ci tey ñaari métier lañ ëpp lu ñuy communi lu ñuy lu ñuy critiquer ci àdduna bi mooy ñi liggéey ci wàllu communication ak fi ñuy liggéey ci wàllu éducation loolu mën ta ñàkk critique métier mën ta ñàkk li am solo mooy critique yooyu noonu nañ ko jël de manière positif te yolomal mbir ñi xam ne Sénégal sunu Sénégal la ñun ñëpp ñoo ko bokk te réew lu ko taal dafa yomb mais lu ko fay dafa jafe. Sénégal ñoo ko bokk avant mooy tëj li nga xam ne moom mooy séance de questions yi damay ñëw si benn question d'actualité léegi la tombe ki nga xam ne mooy le maire de l'ancien maire de Dakar muy Khalifa Sall jox na bras euh, lëkkaloo na ak ki nga xam ne mooy Macky Sall pas un dialogue mais forum bi nga xam ne Barthélémy Dias mënoon ko organiser fee sa ville de Dakar ñu bëggoon xam yow sa analyse euh, si lu ni mel en tant que sénégalais pas en tant que conseiller wala en tant que journaliste en tant que sénégalais lëkkaloo boobu noonu Khalifa Sall lëkkaloo ak Macky lan la ak lu mu a jur. waa ma je pense que ñoom ñaar ñëpp ay sénégalais te léegi fàttali naa ne première guerre mondiale dix millions de morts mais dañoo toog waxtaan parce que guerre parce que guerre c'est les soldats et la diplomatie soldats yi bu ñu guerree tamit diplomate dañuy toog ñu waxtaan trouver un consensus li xew Séné li xew Côte d'Ivoire xewul senegal li xew Rwanda xewul Sénégal li xew Afrique du Sud xewul Sénégal Afrique du Sud dañoo amoon commission dialogue et vérité bañ nañ ko ba tëjuñu kenn ba fa apartheid amee dañoo woowaat nit ñi ñu toog wax li ñu def ñi bàyyi leen ñi génn nekkaat ci seen yitte loolu mooy réew réew adversité politique nekkul ennemi même bu ñu amee ay ay ay jaar-jaar am fu ñu jaar dañoo war a toog waxtaan ndax réew mi Macky Sall kese mënu ko defar Khalifa Sall kese mënu ko defar Sonko kese mënu ko defar kon il faut nit ñi booloo seeni force mu nekk une seule réew mi mën a jëm kanam mais xiiro beeg ŋaayoo beeg xaacaloo beeg amul solo li benn euh, journaliste bu mag di wax amul Tidiane si mu ne ay pour ay dent pour dent waaw mu ne œil pour ay dent pour dent ça va nous donner que amul njariñ waaw. soo amee message bi ngay lancé par rapport li nga xam ne moom moo dal sa sa sa leader di Bilal lan lay doon. waaw Bilal du sama leader mooy ma justifié waaw je son conseiller en communication parce que sama xarit la on a des relations particulières message bi may lancé rek mooy bi ma waxaat sànq moo ñi dalal l'atmosphère politique ñi bàyyi ko mu dem ñibbi këram xam ne c'est une autorité c'est un père de famille c'est un chef d'entreprise boo xam te jël na ay nit tey fay leen ñi koy liggéeyloo tey bëri na tey ñu nekk dans la vie politique que ça soit dans l'opposition ou bien dans le pouvoir bu dul woon fonction élective wala décret xëy na duñ mës a am bulletin de salaire kii nag nga xam ni dafay fay ay nit di defarul ay bulletin de salaire ku nekk maire ku ñu war a jàppale la jàppale la sa place n'est pas en prison sa place et dans sa mairie dans son entreprise et dans sa maison parce que bu xëyee mairie parfois ngoon day dem entreprise am bu fa jógee dem këram. J'étais en, aux, aux États-Unis d'Amérique lors des manifestations de 14, 15 et 16 mars. Je suis rentré le mars. J'étais parti en mission, mais quand j'ai vu mon leader Ousmane Sonko sur son lit d'hôpital, j'ai décidé de revenir au Sénégal pour lui apporter mon soutien mu doon kaddu yi nga xam ne mooy le Bilal jaata du maître comme ça sur yëkkati woon ginnaaw bañ ko tegee loxo di ñaan nguur bàyyi ko mu dem yëgal liggéeyam parce que askan bi da ko soxla jërë ngeen jëf.